asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokki Touba ci kanam ñu ngi nuyu ñëpp te di leen ziare bu baax a baax euh, di jiital ci nuyoo bi Serigne Mountakhal Bachir di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te wér euh, di ci teg Serigne Abib Mbacke di kilifak ak ci kanam ak magam di Alhaji Serigne Tako di ambassadeur Touba ci kanam ak jëwrin ji di sëriñ Abdou Lahad Abibou ak président Abdou Fatah Guèye ñu doon ñëw pour andil leen ay leeral. muy bilan financier bu mois de mai euh, commission des finances sous commission gestion des fonds ñooy def leeral yi bilan bi nag euh, mu ngi nekk liy dugg ci keesu Touba ci kanam ak liy génn dañ koy tàmbalee ci liy dugg ci kees gi liy dugg ci kees gi Touba lañ koy tàmbalee Touba ci mois de mai dugal nañ vingt six millions neuf cent onze mille bu dee Orange Money plateforme bi mooy cent Diès cent vingt 621 Diès dugal na 52 millions 649 mille 473 bu dee Orange Money 78 544 33 33 dugal na 1 million 341 mille deux cent 250 bu dee Mbàkke ci njiitalu Adja Dior Gueye ak ñi mu àndal liggéey bi yëpp dugal nañ deux mille Dakar ci njiitalu Baye Serigne Bousso ak Serigne El Hadj Ndaw dugal nañ 3 millions 772 mille 200 marché Sandaga ci njiitul Serigne Afe Ñang dugal nañ 500 mille bu dee tib ci njiitalu Soxna Khady Dieng dugal nañ 125 mille Yarawaay ci njiitalu Yaa Fatma Dieng dugal nañ 150 mille bu dee Jurbel ci njiitalu Soxna Ndey Ndiaye ak Serigne Fallou Lay dugal nañ 400000 Kédougou ci njiitul Serigne Modou Lo dugal nañ 337000 Thiès ci njiitul Serigne mbay Sall dugal nañ 821000 Ngaay ci njiitul Soxna Maguette jiite dugal nañ 100000 Louga ci njiitul Serigne Moustapha Bassirou Mbuub dugal nañ 1 million 83 mille 500. Kaolack ci njiitalu Serigne Babacar Mbacke mu Kabaro ak Serigne Moustapha Touré dugal nañ 650 000 Saint-Louis ci njiitalu Serigne Ridial Seck ak Soxna Rama dugal nañ 721 000 Kébémer ci njiitalu Serigne Gora Sylla dugal nañ 620 000 Mbour ci njiitalu Serigne Mor Souran dugal nañ 600 000 Joal ci njiitalu Serigne Bassirou Thiaw dugal nañ quatre cent trente deux mille Goudiri ci njiitul Serigne Dame Ba dugal nañ trois cent quatre vingt mille cinq cent Kolda ci njiitul Serigne Moussa Sène dugal nañ cent soixante treize mille Thiey Thiey ci njiitul Soxna Faati Jabaay dugal nañ cent mille Casamance ci njiitul Serigne Mamadou Khary dugal nañ trois cent seize mille Jifeer ci njiitul Serigne Ousmane Ndiaye dugal nañ cent mille Ross Béthio ci njiitul Serigne Alioune Ñing dugal nañ 200000. Touba Belel ci njiitul Soxna Sooda jóg dugal nañ 50000. Vélingara ci njiitul Serigne Mbacke Gueye dugal nañ 50000. maatam ci njiitul Serigne Ndiaga Diouf ji dugal nañ 28050. Kafountine ci njiitul Serigne Njëmbu Cissé dugal nañ 200000. Bokki Jewe ci njiitul Serigne Talla dugal nañ 73000. Daaru Muxti dugal nañ vingt mil Mudéeri ci njiitul Serigne Bassirou Ndiaye dugal nañ cinquante mille Ngooy ci njiitul Serigne Assane Yadd dugal nañ cent quatre-vingt-trois mille tourne bancaire mooy fere yi banque bi di dagg ci compte Touba ci kanam te di ko delloosiwaat banque atlantique dugal na six mille trois cent cinquante-six versement anonyme Euh, mooy versement yi nga xamante ni day dugg ci compte yi te du xam ñi ko dugal toll na ci 2 millions 867 mille 680 Carrefour Diaroume ci njiitul Serigne Modou Makhtar Mbaye dugal nañ 50 mille am na jaayante bu ñëwoon ci compte Touba kanam mu toll ci 150 mille famille Ndioufène ñoo ko indi woon am na beneen jaayante bu ñëwaat ci compte Touba kanam mu toll ci 500 mille euh, waaju liggéey gi ñoo ko indi woon loolu mooy li dugg ci compte Touba kanam yi ci Sénégal mooy zone nationale zone nationale bi buñ ko calculer lépp mu ngi toll ci 96 millions 846 mille 09 francs euh, éclairage public mooy euh, làmp yi dem ci buntu kër yi te Touba ci kanam fàggu woon ko pour muy jàppandi ci askan wi am na versement 920 mille ñu ñëw ci continent yi dañ koy jiital dañ ciy jiital continent Amérique euh, zone Amérique Euh, Canada moo ci jiitu ci njiitalu Serigne Pape Amar versé nañ 1 million 210 mille bu dee ci États-Unis ci njiitalu Serigne Soin bu Seck versé nañ 8 millions 14 mille bu ñu boolee totalu continent Amérique muy zone Amérique verse nañ 9 millions 224 mille ñu ñëw ci zone Europe Angleterre lañ ciy jiital ci njiitalu Serigne Fallou Diop. versé nañ un million 130 mille 500. Euh, bu dee ca Espagne euh, ci mois de mai bi versé nañ 426 mille 422 francs waaye ñu leeral foofu ne versement Espagne bu mois d' avril tolloon na ci 571 mille 463 waaye dañ ko dugaloon ci euh, versement anonyme yi ndax xamuñu woon turu ki ko dugal waaye versement bi agsi na ci compte yi Touba ci kanam. Euh, bu dee Italie ci njiitalu coordination Italie versé nañ 5 millions 632 mille 734 francs am na jaayante bu jóge woon France toll ci 452 mille 967 ci euh, Kër Sëñ Touba diaspora am beneen jaayante bu jóge woon ci euh, soxna suñuy wax soxna Jaara Fall nga xam ne ab nasaraan la waaye bi mu déggee ndigal li euh, daa ñëw tàbbisi ci liggéey bi mu toll ci cent mille francs ak Baye daam Fall mu toll ci cinquante mille suñu boolee jaayante boobu jógee ci France mi ngi toll ci 602 967 francs bu dee France ci coordination France bi verse nañ un million 34 102 francs bu dee Suisse ci njiitalu Serigne Ndiaga Aw verse nañ 250 000 bu dee Allemagne ci njiitul Serigne Abdou Salam Faye versé nañ 641 mille 677 francs suñu boolee li jógee Europe totalu versement Europe zone Europe toll na ci million 9 millions 718 mille 402 francs ñu ñëw ci zone Afrique am na mbokkum taalibe mu jaayante woon ca Togo dugal ci compte Touba ci kanam 1 million waaye bëggul ko wax turam ñuy ñaan yàlla Euh, Serigne Touba nangul ko liggéeyam Gabon ci njiitul Serigne Pape Ciss versé nañ deux cent cinquante deux cent soixante quinze mille bu dee Mauritanie ci njiitalu Serigne Ibrahima Sarr versé nañ un million deux cent cinquante mille suñu boolee totalu zone Afrique muy continent Afrique li fi jóge mi ngi toll ci deux millions cinq cent vingt cinq mille suñu boolee lépp nag muy euh, li jóge Sénégal muy zone nationale bi. li jógee zone Amérique zone Europe ak zone Afrique ci mois de mai versement bi mi ngi toll ci un cent dix neuf millions deux cent trente mille quatre cent onze francs cent dix neuf millions deux cent trente mille quatre cent onze francs loolu mooy li dugg ci compte Touba ci kanam ci mois de mai ñu ñëw ci li fi génn li génn ci compte Touba ci kanam li ci ëpp ci chantier yi la jëm chantier yi li ci ëpp mooy barabu fajukaay yi ñuy liggéey dañ koy tàmbalee ci barabu fajukaay bi nekk Daarul Xadim ci mois de mais bi génn nañ ci 10 millions 28 mille 400 10 millions 28 mille 848. Euh, bu dee ci daara yi daara yi Touba ci kanam di defar mu toll ci limub juróom-ñaar fukki daara euh, ci mois de mais bi génn nañ ci 7 millions 465 mille 800. Euh, ñëpp xam nañ ne barabu fajukaay bu Touba Njaareem bi tàmbali na tàmbali nañ liggéey bi ci mois de mai bi génn nañ ci 6 millions 277 mille 336 francs barabu fajukaay ba nekk ca ndaam tamit liggéey bi tàmbali na ci mois de mai bi génn nañ ci 2 millions 134 mille 500 bu dee ca chantier université ba mooy bâtiment bi Touba ci kanam di liggéey ci université bi génn nañ ci mois de mai 2 millions 136 mille 250 am na ay matériel yu ñu jëndaloon barabu fajukaay ba nekk ca yaañ mu toll ci 767 mille barabu fajukaay ba nekk ca kër gol dugal nañ ci 845 mille bu dee ba nekk ca Boberel dugal nañ ci 596 mille commission communication xam nañ ne ci weer yi ñu génn liñ dugal ci communication bi bari na muy contrat partenariat yi ñu am ak euh, rajo yi am ci yoo xamante ni at la ak ci yenn télé yi bu mel ne télé Futur Média muy TFM ak euh, Sen TV ak euh, Walfajri liñ ci génn mi ngi toll ci million cent vingt cinq mille 800 bu dee commission environnement ñiy saytu wàllu garab yeeg yu ni mel ak euh, pépinière bu Touba ci kanam liñ ci génn ci mois de mai toll na ci 700 787 cinquante francs paiement salaire yi muy salaire ñiy liggéey ci Touba ci kanam bureau Dakar ak Touba ak location bi génn nañ ci 1 million 660 mille am na 10 millions yu ñu génne woon jox ko commission sociale bi ñuy def euh, social ramadan bi nga xam ne at mu jot ñu def ko waaye ren ñu xool fii tolluwaayu jamono ji toll Touba Ca Kanam génne 10 millions jox ko commission sociale pour mu yokk ko ci li mu yóbbu ci askan wi génne woon nañ euh, vingt millions dugal ko ci euh, famille yi nga xamante ni dañ leen a quarantaine te mun taxaa joxoon ci ndigal Touba ci Kanam pour mu taxawu leen génneel nañ ko benn budget wu 20 millions ci mois de mai bi ci na ci loolu tamit génnewaat nañ beneen 20 millions boo xamante ni dañ koo jébbal commission sociale pour ñu taxawu ci ñi nga xamante ni ay néew di doole lañ te jamono xaw am nu mu demee rawatina ci mbas mi. commission logistique nga xamante ni mooy toppatoo lépp luy matériel Touba ci kanam euh, moo xam oto yi la ak euh, yeneen bagage tubaa ci kanam yëpp génn nañ 2 millions 833 mille 658 ci mois de mai bi muy fayu chauffeur yi. ak travaux yi ñu doon defar ci yenn dépôts yi ak carburant bi dem ci oto Touba ci kanam yi am na bureau bu ñu jël ca Louga def nañ ci deux cent neuf mille cinq cent ci mois de mai am na cent cinquante mille yu ñu génne woon euh, ci ay tirage yu ñu doon defar euh, mu nekk matériel yu jëm ci chantier tubaa ci kanam yépp am na vingt sept mille francs yu ñu génne tamit loolu ay frais Orange Money la ca bureau Dakar ba nga xamante ni ñu ëpp ñuy def seen ay versement ci Orange Money lañ ko doon jaarale frais yi mi ngi toll ci vingt 27000 francs am na 500000 yu ñu génne di ko fi teg pour yenn yi jàmp ci Touba ci kanam rawatina weekend yeeg yooyu nga xam ne banque yi duñu ubbi. am na mille 27000 francs 27334 francs yu génn loolu frais banque bancaire yi la banques yi li ñu dagg ci compte Touba ci kanam. loolu mooy li génn ci keesu Touba ci kanam ci mois de mai suñu ko boolee mi ngi toll ci million cent millions 171 mille 076 francs bu ñu ci génnee li dugg ci kees gi ci mois de mai tolloon 119 tolloon ak 119 millions 233 mille 411 francs kon recette mois de mai day nekk 25 millions 62 mille 335 loolu su fekk see solde bi desoon ci fin mois d' avril tolloon ci 681 millions 144 mille 736 francs day nekk 706 millions 207 mille 071 francs kon mën nañoo jàpp euh, le 31 mai 2020 li nekk ci compte Touba ci kanam yi mi ngi toll ci 706 millions 207 mille 071 francs ñuy sant ñëpp di leen gërëm di ñaanal sëñ Mountakha Bachir mu yàgg fi loolu te di sant mbooleem collecteur bu Touba ci kanam ak collectrice bu Touba ci kanam ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi yëpp waaye di sant mbooleem commission des finance bi saytu lii ak euh, sous commission gestion des fonds bi di sant Touba Info di sant waa bureau bi yëpp jërë ngeen jëf